maaleykum waa lu xew TV maa ngi bëgg bokk ci di part participer si seen uh, kii bi ngeen di def nii neex na trop macha allah ah, yàlla jëm kanam ci barke yonent bi ah, di wax ni série bi eh, la eh, maîtresse l'homme marié ah kontaan nañ si daal mais tamit laal la na na daal parce que tamit suñ ne grande dame grande dame dafa war a wane boppam ba mu jeex. parce que su gëmloo Marème na daan ci daan na ci kanamu Marème Cheikh yoo xam nga li charia wax parce que su nee xam nga li charia wax mu bàyyi ba Cheikh dem aaye feneen si moroomu nawleem mu koy jéema di yóbbu doomu hôpital ak di jéem a def ay caprice loolu grande dame du ko def na di mel ni meloon. xam ne Marème rakkam la mu uuf ko waane li ma gën a enquêté wu mooy Bakri mais Bakri moom fu nekk loxoom taq na fa parce que ni ma gisee série bi passé numéro 36 euh, pap kiñ ne moo violé Racky violé wul Racky kon Bakri moo violé Racky ñu jël affaire bi accusé ko baay bi pour baay bi dem tëdd kaso parce que biir wax maire bi nee na ko lii yëpp yaa ma ci dugal parce que tamit paa bi de retouram du yomb ci Bakary du yomb ci maire bi mais nag damay ñaana waa série bi yal na jëm kanam daal neex na trop man ñun ñi nekk bitim réew nekk fii Italie vraiment mi ngi dindi suñu stress kenn stress seetul soo liggéey ba wàcc da ngay daan toog kër yi di stress mais daal vraiment ñoo ngi liggéey di wàcc ñoo di ko di concentré wu di ko seetaan macha allah daam roo di ca kaw ca kanam yéen daal. seen borodi bii ngeen di wax daal yéen daal ay gaynde gen macha allah séeréer bi ñoo dàq sa morom macha allah mais nag euh, xaritu jalika boobu ah lu loolu ñu joué noonu lu am ba mu jeex tàkk tàkk tàkk te dama ko gis dama ko gis kuñ ko def mais nag luy mbirum àdduna la parce que série bi daal li ñun sénégalais yi di dund ci boppam moom moo nekk ci biir série bi série bi daal su ma gisee ku koy critiquer daf may jaaxal waa nag comme que dañoo nekk si pays dëkk boo xamante ni nag dëkk bu bëri critique la bëri li ñuy def parce que nit ñi dañoo am jot comme su meloon ni comme Europe bi xamante ne kenn koo xëy yaa ngi daw wuti loo am doo tala toog di critiquer kenn nit ki nag day juum ndax juum te fépp lay am mareem xay na loolu bi muy joué loolu lañ ko jox te euh, rôle biñ ko jox matala na ko sëkk matala na ko sëkk waa nag juumtayel des fois day am parce que nit ki su juumee xëy na loolu ngeen loolu mu def li ngeen wax dana tax mu gën a defaraat toogaayam mais daa série bi neex na macha allah. Jalika moom xarit bi dafa bon dafa bon trop dafa bon biram dafa bon mais na leen bàyyi moom amoon am na faram bu baax bu ko bëgg na leen bàyyi te continuer relation boobu moo important importance. asalaamaaleykum waa maîtresse maa ngi leen di nuyu. série bi neex na lool neex na trop trop trop trop trop trop li ngeen di wax yépp mi ngi ci kër yi neex na lool mais man Lalla nag laa àndal mais Lalla day bëgg a ñàkk fayda Lalla dafa mel ni lim xamoon sax mu ngi koy bëgg a réer dëgg la wujjee metti na de commencement bi mii moom buñ naan la may nañ la wujju metti na trop mais nag après da ngay takk sa fit nag am sa fulla am sa fayda parce que am na yenn yoo xam ne tamit boo koy def sa jëkkër ci sa kanam wujju sa wujju dalay yeb sa jëkkër bu la xasee woon ginnaaw dem ci sa moroom bul yëg ni sax dem na fa bul woo téléphone bul envoyé message bul lijjanti toogal sa kër jàpp sa njàmbur xaar sa ñaari fan ba ñëw loo bëggee def mën nga ko cee def mais série bi daal moom wax dëgg yàlla neex na neex na lool macha allah. asalaamualeykum ziar naa leen ñaanal leen jàmm. di wax ci maîtresse bi paase rek di leen wax ne kontaan nañ noonu ci Marème lay wax ne Marème yow moom bég nañ ci yow kontaan nañ torop waaw keroog bi nga demee kër laal la mu toroxal la mer gi ma la mere woon moom fay nga ko ci bii waaw noonu la ndax tam jigéen danga war a am mat am fullaay bu toll ni sa jëkkër bu waree ñëw si yow te ayewul sa nga fexe ba bañ a nangu loolu nga won ko ne ko carrément ay woo bu ñu bu fekkee dañuy am ay gan yu ñuy évité nañ ko évité jour bi nga xam ne foofu lay aye wala mu yóbbu leen kër mareem bu mënul loolu yépp nag yow muy jigéen amal mat gu toll ni nga bañ a nangu nga bañ a nangu di jël sa ayu moroom lu la ca fekk rek yaa ko def sa bopp waaw laal na laal la na ànd ak dal waaw na ànd dal te xam ne wujje moom bokk warsëg la waaw fu mu nekk nii moom ah, aawo yi moom fu ne daa mel ni seen fit dafa dem waaye nag dara dal leen rek dal leen waaw lii dara. waaye salaam maa ngi di bëggee di leen ziar di wax ne maîtresse moom ala amul baay neex na am na sens. wax fa dëgg yàlla man Marème moom damay fay dama bëgg xale bu jigéen bu pànk te Marème dafa pànk waaw pànk bu teey la pànk tamit man daal maîtresse amuleen leen loo xamante ne nii daf ma ciy déranger wax fa dëgg yàlla neex daal moom def na ko am na sens te ñun jeunesse bi dañuy dund rek la maîtresse di jouer kon amul leen luñ ci rectifier wala amul leen luñ ci defar. fii lu ne fàng kenn du ko jeex Maîtresse daal kaw ci kanam dañ def lu leen saf ndax dafa neex dafa am sens te ku seetaan gis ci sa bopp wax fa dëgg yàlla man de dama ciy gis sama bopp su ma koy seetaan may génn ayeex billaay ma koy seetaan dama ciy day mel ni maa ngi ci biir série bi wax fa dëgg yàlla neex na daal. Euh, waaw asalaamaaleykum euh, ma bëggoon wax tuuti sama xalaat rek ci Marème ak euh, Lalla parce que. li ma leen doon wax naan Marème dafa ëppal ëppal gaa ngi noonu ñëw si kër laa la di ko àgg si xam na ne Cheikh waaye bu ñëwoon foofu fekk fa Cheikh nag nu muy def su fekkoon ne dafa dem kër laal la di àgg ji fekku fa Cheikh lan lay def wala ah euh, mu dugg si rek laalo nekk doo dugg sama biir mu forcé dugg ba pare fekk Cheikh nekkul ci kër ga kon xaw ma mu jëm di mooy ëppal gi ma leen di wax xam nga. voilà beneen bi aussi laal la franchement nit ku baax la parce que xam la moo tax moo la ko parce que déjà mu ngi jéem a accepter lépp lu ko Cheikh di dox di jox mu mu nekk ci digganteem ak Marème Cheikh fu mu nekk ni mu bëgg na ay da ngay sëy si ay yooyu mais su ma doon Marème du ma fa sëy si parce que jaar jaar ga ma fa jaar a tax waaw ñëw na ci kër ga foofu def fa ay tojaangeem ba noppi ba ci kaw lalu laal la ba bëgg a bëgg nga yaakaar ne kooku dinañ ko xoolee bët bu rafet ci biir kër googu. moom ma nekkoon place de te loolu man ñaanuma yàlla def ko ma ne kon duma sax xalaata dem ci biir kër gi foofu naan di ko sëy na ma wutal fu ma nekk wala ma toog këram foofu mu toog fa Cheikh moo gën di looloo gën a rafet ci deram parce que bu ñëwee ci kër gi xanaa du dugg ci biir néeg ba bés dina ñëw muy yéeg romb buntu laal la xalaat nekk néeg bii dugg naa fi te boobu kenn takku la te bu dul dara sax Cheikh sax mën na ko traité de pute parce jaar nax moom foofu ba pare biir kaw lalu jabaram franchement moom loolu moom nu ma ko accepter dëgg-dëgg loolu moom jigéen bu def loolu ba pare retourné waat ñëw sëy si biir kër goo doo di dégg lu si wax ji allez ciao. salaamaaleykum waa maa ngi leen nuyu di leen baal ak di leen baal ah, waaw lu tax nga naan. buñ la takkalee wujju ngay ràpp ràpp na ñoo xam ne takka nañ leen wujju te ràpp waay ràpp ràpp waay ñu xuma ràpp ràpp dañ koy xuma Lalla ban ba muy def loolu dafa defoon ne moom doo ngay nekk si kër gi Lalla boo ko xoole sax xam ne nitu problème la Marème daal ah, na jaag jaagi na defu ko saf waaw dafay def ba mu baax wujju la doo ko may dara nga xanaa dangaa doon aawa rek dangaa ragal wujju rek ah, beneen bi mooy Mm, mère yaayu Cheikh Ndiaye yaayu yi warul woon wax caga ndax nit moom bu ko doom takkee bu mu bokk ci famille bi ba pare ah moo moom danga koy jël teg ko ne ah ay même bu takkul woon sax tam xam doom rek daa waru ko woon ak caga bi caga moom kenn du wax nit waaw beneen bi mooy ah, Jalika jëkkëram ji ak xaritam bi ñoom ñëpp dañoo foo ñoom ñëpp dañoo foo dañoo lëndëm kenn xamu leen surtout xarit bi ndax biram sax góor la góor moom ak jigéen moom yaa ma gën xam waaye xaritam bi daal moom wax dëgg yàlla xarit moom jaratuta am ci Sénégal njaay gi xarit moom hmm, jaratuta ndax daal doy na waar del xool yow kii ñëw ci yow di la fréquente ah. naan la bàyyi sa jëkkër defal nii defal daal dëkk te yow moom sa jëkkër a ko tee nelaw doy na waar doy na waar sama troisième xaw ma quatrième bi euh, kii nu mu tuddati ki ci des fàttu naa turam bi la euh, xale bu jigéen boobu yaay ji waru ko wax demal seeti paa mu seeti paa ba pare bi gën a metti gis nga go jullit jullit bu fen yow lu metti metti rek ne ko carrément dama am invitation su la mënee comprendre nga su ma demee ci invitation ba dinaa la tegal su la mënee comprendre waaye waroo ko ndax damaa xat ak damaa bëri liggéey damaa nanga ma ne foofu gis la day découragé ci yow day defe ne yow kay yaa ko accepté pour mu kii ah te dañ koo forcé waaye nag danaa wax carrément sama yaay kan moo ne ma ma seeti gi nangam ak nangam maa ngi dem te ñëw su ma ñëwee danaa la expliqué nit day julli day wax dëgg. wax dëgg dafa baax même buñ lay teg paaka waxal li nekk si yow wasalaam maa ngi leen di ñaanal jàmm xéewal yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen baal wa ak di leen baal di ñaan yàlla boole ñu jéggal vraiment may rafetlu émission bi neex na trop trop macha allah mais man daal li ma dama dama bëggoon participer mais li ma bëggoon wax mooy que laal man vraiment daf ma ma rusloo parce que dama ko apprécier woon daf ma neexoon parce que dafa dafa taxawe woon tànku yaay aawo magum kër di toppatoo jëkkëram di toppatoo doomam tey dal donk Marème warut woon a yóbbu fitam ba tax muy doxalee ni muy doxalee tey vraiment man dama ko mujjee xeeb parce que daf ma bett daal daf ma bett parce que man dama dama ko defoon royuwaay dama daan wax ne Lalla mii aaw yu bëri war nañoo xool ci moom di jàng ci moom parce que jigéen bu baax la mais wujju du dara wërsëgu yàlla boole la rek wujju du dara suñu borom moo ko moo ko moo daganal moo may góor mu am ñeent ba am sax juróom muy taara donc ñun jigéen ñi war nañuy gëm ne et puis jigéen ñi sakkan nañ sakkan boo xam ne bu góor ñi takkul benn ñaar ñett ba ñeent kon jigéen ñëpp duñ mën a am jëkkër te ku nekk ñaan nga yàlla am jëkkër wala ngay dee du vraiment ah. laal la daal man côté boobu vraiment daf ma daf ma ci bett trop trop Marème jigéen la rek dañ ko takk Cheikh Diagne moo war a jël responsabilité am xam ne ñaari jabar la yor mu yemale bañ a aussi mais aussi Marème nay seetlu kàddu yu muy wax parce que kilifa yi dañ koy seetaan xale yi dañuy jàngat ci moom te Sénégal dafa nekk réew boo xam ne xale yi luñ dégg rek dañ koy waxtaanee di ko waxantu donc na defaraat ay kàddoom xam ne muy waxee mu gën koo rafetal daal maa ngi di remercier bu baax a baax. salaamaaleykum salaamaaleykum ngi leen baax a baax a baax maa ngi déglu yi bu baax a baax. mais Mariam moom moom doy daal moo ngi noonu daal moom dawul dara à chaque fois day wane nu mel Cheikh Diagne la bëgg daf ko war a mën a jox li moom góor bu demee ba takk ñaari jabar dafa war a assumer ay responsabilité mu jox kii ayam jox kee ay am warul mën a sàcc ay di ko jox kee parce que loolu heure boo ko defee bu jigéen bi xamee loolu noonu man na la ci wax lu la neex na am la su boobaa yaa koy tooñ ma ñëw ci Jalika Jalika moom franchement moom man daf ma neex quoi daf ma neex moom franchement mais xaritam moom man xawma sax mënuma mënuma mënuma la expliquer sax xawma lan laa war a expliquer pour moom c'est parce que di dimbale nit wala ngay jàpp leen nit lañ ko mën a wax ne ba yii nii di la ci fekk nii dama jàpp ne bëgg-bëggam la en plus mbëggeel moo ko ci dugal ba muy def lii nii mais yaakaar nit boo ko dee jàppale ba na cee gis lu lay gaañ wala mu lay tàqale ak say xarit yu démb nga war a mën a arrêté pour man sama gis-gis loolu laa gis mais jali kii euh, nu mu dolet sax bi moom yaayu yaayu rakki ak euh, paa bi moom euh, am na série bu jàlloon jour bu mu ko gisee ci buntu kër bi man dama gisoon ne moom papaam la waaw mu bien am na lu doon ci moom tamit loolu moom laa gisaat ni ni ni ci dernier épisode euh, bii nii ñu mujjee seetaan nii mais bi moom li mu koy posé ci waa ji xamoon naa ne moom am na lu nekk seen diggante parce que maa ngi dégg mu naan ko lu ma dugg yaa ma ci dugal kon am na lu mu bëgg loo xamante ne nii moom moo koy défendre digganteem la ak kooku noonu moo tax mu bëgg ko jox doomam am na lu nekk ci biir loo xamante luñ sekk walla lu dox seen diggante loo xamante ne nii moo tax mu bëgg fa fay loolu noonu pour mu boole ko ak doomam. mais man su ma noor ak kii hmm, conseil bu ma koy jox mooy na dem ak Tapha parce que ñoom ñaar ñoo mën a ànd relation boobu noonu moo gën a compter que benn paa bi moom bëggul kenn dafa yor xaalisam xam nga di doxee lu ko neex di def lu ko neex nekk ci entreprise bi ku ko neex mu waxal parce que daf ñuy wax naan souvent dañoo ne xaalis boo ko amee. loo bëgg mën nga ko am mais ak ay nitam dèjà am na ñoo xamante ne nii loolu yóbbu leen ay xaalis ak loo mën di am wala xooluñu loolu noonu fu ñoom seen mbëggeel moom la ñuy xool ci nit mais pas xaalis mais instant yu toll nii am na ci ñoo xamante ne nii xaalis rek mooy seen bépp bunt te buñ ko amee jàpp nañ ne lépp. lu ñu bëgg mën nañ ko am loolu moo tax muy doxee comme ni muy doxee nii. maaleykum salaam maaleykum moom neex na trop waaye Marème moom dafa ëppal muy ñam mi ñam mi noonu mel ni bëy ndëpp waaw laala nag moom fees na palaasam dell teey def na mm, la lalla moom naa dëgg sa jaan du ko dëgg eh, mareem nag moom dafa ëpp mi ñam mi ñam mi na bëyi ndëpp ku am ku amul jom doo deltu gannaaw te mareem amul jom moo tax du deltu gannaaw neex na toram na maa neen ñaana rek ñu dem ci kanam dama yéex nag ndax sama paas dafa jeexoon moo tax waaw damaa sant la gërëm sama xarit ci asalaamaaleykum waa groupe bi maa ngi leen di di leen saara bari ci lu ngeen nekk yaa yéen ci jàmm baax ah waaw seen série bi maîtresse waaw <laughs> ah, maîtresse moom vraiment série ñëpp la quoi série ñëpp la man wax dëgg yàlla contre ma ci kenn ñëpp daal ñëpp daal laa àndal waaw lalla moom li muy def tegu ko fenn góor ñi yàlla da leen a da leen a sant ñu ñu takk ñeent soxna ci buñ ko manee comme Cheikh moom mën na ko ba takk aaw di ko yàlla di ko dimbale mu koy man ba takk ñaareel moom na toog seere rek lu mu yàgg-yàgg moom moom mooy jiite lu mu yàgg rek laa la muy jiite parce que koo gis nag ci benn lay commencé ko loolu moom moo ci am solo non Marème Gaye man moom ñaareel bu mel ni moom laay ñaan yàlla waaw ko jongee ni moom ko xam ni du maye dara da lay teg soog fàtt la moom moom wax dëgg yàlla neex na ma non Jalika moom borom baax la Jalika moom moom biram mérito ko sax tas boobu mu def daal moo gën na ànd ak waayam jooju daal kooku daal li muy waneegum moom moo dëgg yàlla moom lu baax la te yërmande la ci jigéen quoi vraiment Racky comme li waajo li li soxna soo si wax léegi rek yaayam bu ko waxoon jëlal sa loxo bi di ko ko ci taal di ko ci dugal nga ko bàyyi te xool ki mu bëgg waaw yàlla amul kenn ku mu sant ñu forcé la nga dem sëy koo bëgg nit moom ki nga bëgg rek ngay sëyal quoi vraiment waaw mère Diagne it moom it mu xool li muy àtte quoi moom it mu xool li mm-hmm. àtte sa doom moom ah, da ngay war a jéem a xool li ko neex rek nga jéem ko cee jàpp quoi bu dee mooy dëgg waaw wax dëgg yàlla am na solo ba macha allah. waaw ah, parce que man moom maîtresse daf ma neex maîtresse euh, euh, ndaxte man biram daf ma neex biram ak Racky euh, Jalika noonu métti man moom problème mu Racky moo ma gën a métti ndax Racky maire bi su doon bu mu ko xoolee xam ne maire bi juru ko waaye nit doon jur. te moom li ko rakki nangu doom ju mu sukk jur sax du ko nangu mais boo ko xoolee nga xam ne mère bi juru sukkul jur rakki ndax sukkul juróom sukkul juróom du doxalante ak moom nii ndax doom ji nga jur nga di ko laaj dépense moom mooy daw utile indil la bëggul lu la naqari bëggul lu la metti te mère bi gisee wut foofu toujours lu naqari rakki rek lay def du ko gërëm mukk doom lu mu ndayam doom mu gërëm ndayam waaye nag yenn saa yi nga neexal ko tuuti nga neexal ko man nag moom dëgg yàlla daf ma neex euh, parce que jalika noonu piram euh, ka maa ngi leen di ziar na moom seen épisode moom neex na man moom pratiquer ko moom war na Serigne Touba Moustapha seen couple nice na de waaw waaye Moustapha nag moom it dafa war a xam ne rakk jigéen la rek daa yaakaar ne ko waxee rek moom daa yaakaar ne moom ko waxee moom mu bàyyi ko loolu tax ko ko doon ko ko nëbb ba dem waxee jékkee ndekete yoo Bakary moom it moom bi dañoo teg dil waaw xam moo tax maire bëgg ko wax ko Bakary waaye moom rakk bu Bakary Moustapha waaye nag moom a comprendre seen couple naay su sax Marème Diagne nag moom man en tant que aaw man aawa laa de moom Marème moom moom li mu moom neex na ndax Lalla a njëkk ndax Lalla moo njëkk a def seet si yooyu waaw ndax Lalla laay woo Cheikh Diagne yëpp naa ko Noura waaw ak Jalika nag moom waaw Jalika nag moom moo war a comprendre Dieye ndax Amina bu déggee Amina Amina nee na Dieye papa waaw war na koo xam war na koo moom it jaay nag moom kii nag moom ku bon la jaay moom ko coro moom ku bon def bàyyaa ngi ci jaamu naka yi tey waa maa ngi bu baax a baax nag di wax ci maîtresse d'un homme marié waa di wax ne wax dëgg yàlla de Marème amul nu ma ko sikkee parce que Cheikh e Diagne daal moo ko xool ba takk ko indi ko ci kër gi rek la war a def mais e laala dof dof loom gi la war a bàyyi ko bàyyi moom jéeg piir la mat na li mu doon waaw na ko gérer moom Marème sax warul yóbbu fitam nag wax dëgg yàlla Marème moom warul yóbbu fitam ku dul Marème sax warul yóbbu fitam ndax moom mat na li mu doon te jëkkëram bëgg na ko foofu rek la war a xoolee nag foofu rek la war a xoolee mais daal ku ci mel ne Marème moom jarul daal di di di yóbbu sa fit daal parce que moom kenn xamul daal lan la bëgg daal ah moom dafa bëgg defante kee defantewul nag na ba jàmbur. asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu di kontaan ci série bi lool série moom neex na gisuñu lenn lenn rek lu ciy nit di wala dara. macha allah rek la wax nit ñi moom kenn mënul mucc ci ñoom lu ñu wax tey bu subaa ñu wax lee série bi gisuma ci benn sikk waaw xanaa laa la nag laa xaw a mere parce que nii mu def war ko woon defe côté boobu moom kontaanuma ci waaw di di wax Jalika moom it na gën a góor góorlu moo raki raki man yaayam bi moom mere naa ko lool dégg naa ci commentaire yi nag gaay naan du yaayam lii rek la mën a demee kii mënul nekk yaay Racky ndax nit doo jur sa doom ak doom nu neexee ci xol nga di ko teg yenn métit yi Racky lu mu foraatu ñëw indil ko ba pare mu bëgg koo forcé ci góor goo kenn xamut loolu moom d'accord ma ci série bi moom macha allah neex na lool lool lool mais Marème moytul sa bopp Marème moytul sa bopp li ngay def ëpp na torop dëgg la jigéen nag day jonge def xeeti baax baax mais nag dafa am côté boo xam ne yow yaa ko moom am côté bu keneen moom Cheikh Diagne yow góor gu mën a tas kër nga yow mën ngaa jaay netatu te doo xeeñ biram nag moom kenn demul mu des moom moom moo jël kub bi moom biram kenn du moom mais biram lu joor dugg lu ne moom moo ko si dugal te keroog bi mu toogee joor ci restaurant ba bi koy joor di wax problème bu ko encouragé woon xelal ko lii yëpp du ko fekk mais daf kaa gën a xëcc ci boppam te jigéen moom xelam matul lépp nag biram la nekkul joor jërë ngeen jëf asalaamaaleykum ah, si li ngeen ne yéen a ngi si jàmm waaw soxna Marème Marème yow li may def nii neex na ma trop vraiment mais lala lalla Marème dafa yóbbu sa fit lalla yow Marème dafa yóbbu sa parce que yow biñ ne la may nañ la ñaareel seex ñëw ne la takk naa jur boobu noonu waroo woon dof parce que gis nga dof dof lu boobu nga doon def loolu loolu moo la rakkati ba léegi nii li ngay def xamuloo ko loolu tamit moo may fit Marème ba nga xamante ni lépp loo xamante ni def nga ko léegi day xam ne yow mi tappet nga parce que sa dof dof lu fa lay jëlee sa tapet faf la ko xamee loolu moo tax léegi amatut lenn lu muy ragal sa diggante yow ak moom benn ñaareel bi mooy toppe baaxul gis nga toppe gi nga doon def moo may tamit mareem fit ba lépp lum jëmee wax mu di la ko wax parce que gi nga boo toppe wutoon toog sa kër mareem mën na la bañ a miin mën na la bañ a xam yenn xam yi ba nga xamante ni lépp loo xamante ni bu wax ji jotee bam takk ko boo jàkkaarloog moom loo ko wax dana ne ah kii kat du ko ñemee ndax xamaguma ko mais marraine daf la xam avant muy ñëw kon nag bu ñëwee amatul lu muy ragal ci kër gi ñaareel bi mooy indi gi ko indi woon sa kër daj ko fi waaw keroog ba nga ko defee da nga yaakaar ni mooy saafara lépp waaw te foofu nag mooy bunt ba mooy bunt bi nga xam ne fala la ñemee fala la gën a xamee xam ki mu toogal mooy kan keroog bi mu la tontee. su boobu nga waroon a xam ne kii amatul lenn lu muy lu muy lu muy tiit kii amul lenn lu muy tiit si nga waroon a xam lan la kàppaawal waaw suur boobu mu nga dëj ko sa kër nga wax ak moom ba pare mu tontu la si nga waroon a xam lu mu kàppaawal xam naa nag li ma si mën a wax du bari ndax su ma toppee wax ji am naa mooy loolu ndax mais vraiment daal neex na trop loolu la am la ma leen di wax yal na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp. waa série bi moom série ehm, Eno Marie ah, Marème man moo may daaneel daal ndax ñun ay ñaareel lañ te mariem day wàcc ba zéro xale boobu rekk moom laa jippoo daal fi nga teg sa tàng nag foofu la bu ko mës a teggi parce que yow li nga moom nañ la ko jox ba mu mat ndax cheikh lim def du dëgg du yoon yow yaa aye pourquoi mënul ñëw jox la sa ay ba pare suy invité ay ganam mu bàyyi ba aawam aaye tamit li nga def daal ci la ànd waaw del fël-fëlaale sànneeku ñun ñaareel yi daal fi mu ne moom ñooy bomb daj neexul asalaamaaleykum warahmatullahi taala wabarakatu waa kër gi nuy naa leen ziar naa leen màggal naa leen bu baax waa sëy de maîtresse maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen màggal bu baax a baax a baax di leen ndokkeel tamit ci euh, weer bu sell bi ñu jóge ak euh, ci korité bi ñuy nekk te ñaan yàlla lu ci waaye ñaan rek suñu borom nangu ko ci barke Seydina Muhammad waaw man dama bëggoon ñëw ci série maîtresse bi parce que man dama koy suivre franchement dama koy suivre man dama ko tardé benn yoon su ma ko ratee ci télé bi sax euh, dama koy ko ci YouTube bi franchement mais daal c'est intéressant daal dëgg yàlla wax dëgg yàlla man série bi gis ma ci benn loo xam ne nii niñ ko nit ñi dañ koo war a mën a critiquer mais nag Sénégal nag moom noonu la mel boo defee lii ñu wax la la boo defee la la wax lii mais nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi liggéey ngeen jàpp ci ngeen li ngeen ngeen jàpp ci li ngeen nekk rek te xam ne ni liggéey moo leen tax a jug da ngeen jug pour yeete rek waa nit ko ci nekk bañ koo jël def ko li nga xam ne ni mooy réalité parce que lii ñi nga xam ne ñoom Marème di def ak ñoom Soxna Laal la xam nga ak ñoomu Jalika en tout cas ma ñoom ñëpp ci mais man benn côté man dama xaw a mere Laal la dama mere Laal la parce que dama meree ko doomu aadama bi am na loo xam ne doo ko bay bayal ba mu dem doo ko bay bayal ba mu egg foo xam ne nii ah euh, après yooyu yaa ci des. parce que yooyaa ci des bi maanaam mooy bàyyi na Cheikh Diagne nekk ci lu ko neex ak mareem muy seetaan di digle ñu leen di topp lu ne mu dugg ci mais man nanguwuma loolu man lépp loo xam ne du dem rek man dama ne ko éviter loolu mooy li gën man du ma la bàyyi ba nga miin sama kër du ma la bàyyi ba nga miin sama néeg du ma la bàyyi ba nga miin sama lal ah ma doog a jub non non loolu ça ne fait loolu kenn du ko def parce que loolu ma nga bàyyi jaan bi ba mu dem nga ne ci watat ba di dóor man daal laala laay rapproché loolu gis nga jeeg dëgg pire ah da ngay góor doo ko wóolu à cent pour cent góor doo ko cent pour cent doo ko am na loo xam dafa war a des sa diggante ak moom waaw en tout cas mare moom man franchement wax dëgg yàlla man daal waa say terme la ñuy wax man gisuma ci lu aay aussi ku nekk na ak sa gis-gis ak ni ngay gisee ma gisuma ci lu aay xanaa comme sénégalais ñu ne nga defaraat terme yi rek ah nga gën a góorgóorlu nag yooyu yi man de gisuma ci mais comme tamit li ngeen def pour sénégalais yi ñoo tax pour doomu aadama yi ah xanaa ngeen nga gën a defaraat terme yi mais mare ma ne yow laa àndal de loolu barki yonent bi yow laa àndal parce que wax dëgg yàlla am na tey jigéen ñu bari tey yaa leen di may fit xam nga pour ñu mën a résister ñoom ci li ñu bëgg. pour ñu mën a téye ci lu ñu bëgg franchement waaw maa ngi jéggalu na bu fekkee wax ji ah bu amee leen lu ci ngeen xam ne yàlla suñu borom la bu amee leen tam ci ñagas ngeen xam ne ne man mii la waaw maa ngi jéggalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu salaamaaleykum salaamaaleykum maîtresse ñu leen di ziar seen théâtre bi neex trop waaye man de ma bëggee ñaareel xoolal maram moo tax ma bëgg ñaareel jigéen day am fula ci lu mu jigéen waru seetaan ci li mu moom wala moroomu jigéenam xool di ko ci ëppal sàcc ay nag loolu moom du pexeem jigéen xool pexeem góor la man góor laa de mais dama dama bëgg dama bëgg xool góor ñi xam ne sa jabar bu la joxee cër yaa ko may sa bopp ndax ba nga xamee ne carrément xool ayoo xool sa kër awo Sénégal waru woon a nangu xool laal di ko defaral reer ba muy éviter ay garam laal moom tamit xool fitam dafa naaw parce que fa fogoon Marème ak Marème xool fi mu fële xool du benn Marème neex na ma lool ci ni muy doxee ak laala parce que day xuloo laala pare dellu ginnaaw xam nga maanaam daal <laughs> Marème daal mu ngi noonu daal Marème mu ngi xam nga ñun moom xool fi nekk ci Espagne fii wala maram la ñuy bëggee xam nga Jalika yow jërë faute sa xarit moom tamit xëj na góor moo ko waroon dimbali ndax jigéen amul xel parce que fu ko mbëggeel fekk rek fu nekk xool da koy yóbbu mais jëkkër Jalika man su may contre xool moom laay contre da muy dunde moo salte te tamit xool famille Cheikh nañ bàyyi di wax maram caga bi maram du caga parce que amour moo demee noonu xam nga te tey comme jabar la comme laala rek xam mais goro yi xam nga yenn saa yi tamit xool mooy loolu. salaamaaleykum maa ngi ziar leen maax yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekk ay déwén déwén déwén déwén déwén man moom maîtresse dama koy seetaan lu bëree bëri bëri parce que mun naa ne man ay série sax dama ko seetaan mais bii mooy sama première fois ma ma concentré wu si seetaan. parce que rôle bi premièrement moom mu njëkk neex man moom Marème moom sincèrement parler moom may faj parce que nit bu direct la te tamit xam nga tamit lu xew si dëkk bi rek lay def parce que série bi tamit ñëpp ko bëgg parce que fii ñoom ñëpp dañuy copier coller parce que man de maîtresse man seet naa dañoo ñëw indi beneen xam beneen système de jeu o xam ne ñoom noonu lañuy jouer seen jeu bi benn xam nga gars yi si jaar digg bi la ñuy jaar xam nga ba pare lu ñu leen lu ñuy sentir la ñuy wax te loolu muy film. parce que tamit bo booy yeete jaratul booy demee ba yeete parce que film yi film yeete la théâtre yeete la boo demee ba nekk si théâtre di yeete da nga war a mu benn sant di jaar si digg bi pour nit ñi di mën a comprendre parce que Sénégal boo nga jaar si digg si léegi nit ñi di gën a comprendre parce que am ñoo xam ne ne boo nëbbee fii ba suba mënuñoo comprendre lu ngay wax mais boo jaaree si digg bi au si lañ mu comprendre ne kii lii la bëgg a wax film bi moom sincèrement parlé man apprécier naa ko xam nga très xam nañ trop. ba pare lu ñuy def bu ñu si bàyyi dara bu ñu déglu nit ñi Sénégal nag am na ñu soxor ñoo xam ne ne lu ñuy déglu mooy xam nga waay waay waay waay film bi dafa garaaw fi amul leen la fi garaaw amul gisuma man la fi garaaw tous garaaw fii film la film la bu ñëpp di seetaan xam mu neex trop ñun ñi di ko seetaan te film tamit yoon la nga di ko seetaan tamit xam nga di si yëg sa bopp. yëg sa bopp mooy lan di si concentré wu di gis loo xam ne loolu mooy xew si dëkk bi lu fi xew si dëkk bi mooy aaw ñaari lu ñu war a dundee te loolu moo xew si dëkk bi te mais tey nag nit ko nenoon nit ku sañoon am na nag jabar ju mel ne xam nga yaa ma gën a xam marraine man marraine moom damay faj moom billaay asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziare waaw seen série bi maîtresse d'un marié man maa ngi koy seetaan bu baax mais Marème euh, yéen da ngeen di yeete parce que Marème li ngay wane foofu rek mooy jigéen lu tax ñu naan la tout le temps caga bi dañuy wane ni foofu rek jigéen dafa war a yam parce que bi mu lay doxaan bu fekkoon nangu woon muy ànd ak yow si kër lalla di la di la di la di la wane foofu wala di nekk ak yow foofu loolu doo loolu du la dal kon du la duñ la wax ay caga bi tout le temps duñ la ko wax waaw foofu da ngeen di yeete rek waaw man vraiment kontaan naa si film bi parce que yéen a ngi bu njëkk daawuñu seetaan yi mais yéen a ngi wane yéen a ngi yee Sénégalais yi bu leen découragé man leen di encouragé loolu amul problème parce que lépp gis nañ ko fi waaw Jalika tamit jigéen bu baax la ko vraiment man li muy waxee dafa ma neex parce que dafa mun sëy vraiment dafa mun sëy te et puis noonu la daal man daal vraiment man leen di encouragé daal xam nga ngeen góor góorlu bu baax xam ni dina baax parce que yéen a ngi wane film bi. mais biram moom man dafa may daaneel biram dafa may dajji waaw parce que loolu day wane ni rek jeunesse bi ba tey seen kàllaama loolu dafa am parce que am na geste yu muy montré xam nga day wane ne rek seen kàllaama li ñuy doxee ba léegi man daal vraiment dama leen di seetaan waaw ba série bi commencé ba léegi maa leen di seetaan mais yéen a ngi yeete bu leen kenn découragé loo man maa ngi seen ginnaaw waaw waaw te sénégalais yi bëgg nañ ko ah bëgg nañ ko ñëpp bëgg nañ ko dañuy wax rek mais ñëpp ko bëgg waaw yee leen gars yi parce que li ngeen di wane si film bi yëpp dafa am ay réalité yu ñuy dund la mais daawuñu ko wane waaw loolu lépp dafa am surtout ma viole yi ni viol xale yi waaw loolu daf ci am daf ci am. maa ngi dégg benn femme naan dafa ñu bëgg a jaar si kër gi donc man gisuma loolu dafa dama yaakaar ni que xolam daf tooñ rek peut-être dafa bëgg te it seer dafa ragal laal la yokku ko lim moom kon bépp jigéen boo xamante ni takkal sa jëkkër takk na la te jox la li nga moom am nga droit réagir ni mu neexee noo ko dafa bëgg rek dafa neexul tamit nag jigéen jaar sa kaw laal.